situation bi ay ki nga xamante ne rek moom moo di juróom-ñaari nit yi am benn jigéen di Nabou Leye yoon daal na leen di teg euh, loxo jamono gi nag mandat de dépôt lañ leen daal di teg ma rek nga def ci analyse boo xamante ne tey dina soxal askan wi. waaw xam nga euh, procédure judiciaire yoon moo ne fa am lu fa am lu jaar. Mhm. loolu moo tudd procédure judiciaire donc euh, li ci li ci li ci li ci bu muy mujjee rek nu xam ñi xam yoon tuuti wala ñi ciy xam na ne euh, dina moo si topp c'est-à-dire mhm. que mbir mi xewee ba ñu informer procureur bu njëkk a def mooy dafa jël euh, dossier bi dénk ko euh, ay li ñu tuddee officier de police judiciaire mhm. alors mu fekkoon police bu nekk ci gox bi duggoon ci mbir mi muy police bu Pikine mhm. dig mu saisir dig dig dig daal di désaisir police police bu bu bu Pikine mhm. et su boobaa également di def enquête pour le parquet donc mhm. bu paree enquête pour le parquet dafay jël également mhm. allô da leen di entendre bu leen dégloo ku nekk si ñoom li ñu la li ñu jàpp ne la et la policier yi am en terme d'indice wala information mhm. moom mu ñëw laajaat leen ci fee yooyu noonu pour mu mën leen euh, ku nekk mu am lu mu distribuer maanaam mu distribuer la benn chef d'accusation mhm. mu ne la yow euh, yow yaay présumé auteur bi yow yaay présumé vol bi yow yaay présumé également euh, lu ñuy tuddee acte de barbarie wala yéen ñëpp ko def mhm. et cetera wala mu ne diw yow complice nga ku nekk lu mu lay wax ne lii leen lay toppee dafay am élément yu muy motiver ne soo gisee ma ne lii laa lay toppee parce que lii ak lii sa acte sa comportement bii la mhm. donc lu mu amee en matière criminelle euh, yoon def ne bu fekkee ne ci wàllu crime dafa am obligation procureur mu mu mu tijji une information judiciaire mu dénk mu mu sant ko un juge d'instruction mhm. donc moom bu leen dégloo ba pare amul amul élément yu mën a tax tey ñoom maanaam duñu ñu ñibbi seen kër lu dul élément yi leen di dugal maanaam leen di yóbbu mandat de dépôt rek moom la procureur am parce que am na tous tous les éléments qu'il faut pour mën a attester que ne ñoom da leen war a placer placer sous mandat de dépôt. mandat de dépôt. Mhm. alors c'est une suite logique normale et c'est une procédure judiciaire qui en train de suivre son cours daf maanaam c'est juste deuxième étape am na une troisième et une quatrième. d'accord kon kon kon ñu jàpp ne instant bi ci ci ci deuxième phase dañoo nekk deuxième phase bi c'était mooy audition euh, audition bi kii euh, bu amoon ci bureau euh, procureur procureur bi mhm. procureur daf ci pare mhm. léegi dossier bi da koy da koy dénk benn juge d'instruction mhm. et juge moom léegi li dig la loolu ndik lu mu doon def au début moom da koy defaat maanaam enquête yëpp lay toppaat xool ku ne lan mooy sa niveau d'implique sa degré d'implication lan mooy si sa responsabilité bu amee toutes ces informations mu doy ko su boobaa dafay informe procureur ne ko li ma santoon day parrainage yi léegi bëgg naa li ma gis ne mooy il faut ñu il faut ñu gën a àttale ko hmm. te su boobaa loolu la ñuy tuddee l'ordonnance de renvoi de l'affaire auprès des juridictions de jugement et su boobaa ci la ñuy organiser euh, procès hmm. euh, ci chambre criminelle ñu xool ku ne euh, lan nga def hmm. le su boobaa juge mooy déterminer lan mooy véritablement la responsabilité de chaque accusé ou présumé euh, meurtrier. d'accord léegi troisième phase boobu mën na durer combien de temps. bon bu dee ci wàllum crime amul délai. amul délai parce que bu dee ci wàllum délit euh, dañ ne le le le le le le euh, le maanaam la lu ma tudd information judiciaire mënul dépasser six mois. Mhm. léegi bu ci wàllum crime foofu amul délai c'est-à-dire que le procureur mën na mën na leen téye mën na leen bàyyi kaso pendant deux ans muy parce c'était atte su boobaa amul fenn amul kenn ku ko mën a wax gaawal atte mhm. amul kenn ku ko mën a wax également forcément da ngay atte parce que kenn tënku ko ci temps mhm. kenn tënku ko ci délai donc su boobaa mun na également tey nous sommes le vingt huit mhm. mun na ne euh, commencé naa vingt huit di ma par dinaa pare balaa deux mille vingt cinq waaw lu ma soxla ci information dinaa ko def donc su su mu jël dossier bi jox ko ñu war a atte parce que moom attewul moom information la wër donc su boobaa tant que moom parewul kenn du atte te pour mu pare pour ñu atte il faut moom mu def li ñu tuddee euh, investigation yu sori mhm. yu xóot pour mu mën a boucler ce qu'on appelle euh, l'information judiciaire d'accord léegi fii ay avocat ñoom ndax am nañ ci ay rôle bien sûr mhm. euh, la preuve ñi nga xamante ni ñoom lañu ñoom la ñuy doon euh, entendre Mm-hmm. yoon daf la na képp koo xam ne dañ la woo ci kanamu yoon wala police wala gendarmerie bu la neexee doo tontu tant que sa avocat nekku fa. Mm-hmm. donc ñun ñoom ñëpp xaw ma ndax am nañu ñu amul woon procureur nee na leen ana seen avocat soo duggee woo. wala bu donc su boobaa aussi procédure normale parce que duñ la accuser lu mel ni crime. kon excuse moi lu mel ni kii ba la ko accuser ngay bàyyi sa bopp yow kese parce que su boobaa euh, lu la ciy dugalaat dafay gën a yomb donc du coup di nga am conseil juridique boo xamante ni moo lay orienté wax la euh, nooy def. Mhm. parce que fii c'est c'est c'est nee naa la l'affaire est sérieuse mhm, parce que procureur chef d'accusation yi mu wax waxu ci sax meurtre. Mhm. xam nga meurtre ak assassinat bokkul. dëgg la. parce que meurtre bu doon dafa wax meurtre léegi avocat yi nga xamante ne dañuy jàpp ne mën nañ défendre comme quoi loolu am mais homicide involontaire moo am mhm. mais puisque assassinat la ñu wax mooy que ne yéen kii yéen a ko dafa dee mhm. te kenn si yéen wala yéen yéen a ko fexeel ba mu dee mhm. donc da ngeen ko wàcc togg ko léegi mu tuddee ko assassinat léegi pour ñu génn ci loolu nag dina jasal lool pour nga justifier que ne waajuloo ko parce que dafa am élément yoo xamante ni procureur nee la fa sukkandiku pour moom amul beneen choix lu dul envoyer prison. Mhm. Mhm. mu nekk mbir mu doy boo xamante ne tey Sénégal ñëpp moom la ñuy waxtaanee mais ndax yaakaar nga buñ ñu demee ba ca cappaandaw ga ba ñu xam fu dëgg gi féetee amaan mën na ci am. bon yoon daf ne bu fekkente ni. Euh, dañu laa toppee wàllum crime. Mhm. Euh, euh, plutôt de ñu tuddee meurtre dafa définir meurtre comme loo xamante ni mooy nga rey nit te tey ko mais préparé woo ko. Mhm. mu ne bu dee loolu la yow sa at kaso dinañ la tëdd lu commencé dix ans ba vingt ans bu dee bu dee meurtre la. Mhm. mais bu nee na bu dee assassinat la te rey nit te tey ko te préparé ko mooy dinañ la tëj sa giiru dund maanaam dinañ la tëj réclusion criminelle à perpétuité mooy. boo génnee kaso rek dañ laa yóbbu ci morgue ba loolu mhm. mooy liñ lay daan ci wàllum at ci wàllum ci wàllum sanction mhm. fekkente ni yow yaa ko def mhm. léegi ñi nga xamante ne dañ cee laale wala ñu takk ci par exemple bu ñu jëlee exemple comme le cas de Nabou ñu naan mi ngi ceem nekku ci genre yooyu bu ñu leen doon jugé en tant que juriste tey ñoom seen peine lan lay doon. waa xam nga dafa cinq chefs d' accusation le procureur énuméré. Euh, bu ci jiitu daf la ne association Euh, beneen bi mu ne la vol aggravé mhm. beneen bi mu ne la assassinat beneen bi mu ne mu ne la acte de barbarie mhm. euh, beneen bi mu ne complicité de ses chefs mhm. mooy yéen ñii li ma mën a tënk mooy yéen ay malfaiteurs ngeen groupe ngeen donc loolu ku nekk si nga bokk mu ne leen également assassinat bi certes yéen ñëpp mën ngeen ci bañ a bokk waaye yéen diw ak diw ci nga bokk waaye yow complice nga ci assassinat bi par exemple mu ne la vol aggravé mën na bañ a concerner ñëpp mën na bañ a mën na concerner kenn c'est-à-dire bu dee téléphone bi dañ koo jël nga yow nga benn waaye jël ko ci parmi le sept su boobaa kenn ko la ñu toppee vol aggravé bi donc su boobaa dañuy gis ne dafa am ay chef d'accusation bu ne ak lu lay daan mhm. mais bu dee dañ la dañ la jàpp ne da nga yow tu complicité de meurtre yow su boobaa di nga tëdd kaso comme également ñu ñële certes bu ñu tëjee kii vingt ans yow mun nga na la servir benn peine boo xamante ni ci dix ans ba ci quinze ans cest à di que loolu su boobaa ki la atte juge bi mhm. moom mooy apprécier la gravité les circonstances aggravantes bu xool ne lii nii dafa grave de sorte que yow mënu ma la tëj lu moins de cinq ans il faut mu tëj le dix ans donc loolu c'est appréciation des juges mhm. maintenant bu fekkee tey nii nag assassinat la nee la foofu moom soxna si. Hmm. lu gën a lu gën a lu gën a oyof mooy nga nga c'est-à-dire amul amul lu oyof. parce que lu hmm. gën a métti mooy dañ la tëj kaso bi buñ la tàggee ngay génn kaso. loolu mooy loolu mooy euh, réclusion criminelle à perpétuité wala ci à vie pour nga comprendre conscience. macha allah ñu ngi lay jaajëfal Joros. nañ la xaar ci plateau bi di la jaajëfal am na solo lool kàddu yi nga xamante ne rek yëkkati na ko ci li nga xamante ne rek moom moo jëm ci leeral yu am solo yi nga xamante ne rek baaxee na ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bàyyi xel fépp fu ñu mënti nekk dégg ngeen cuun le grand juriste kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko leeral na mbir mi bu ñu ba ca cappaandaw ga ñoom seen ëllëg fan la ñu fas yéenee mujjee complice lañ lu ci mënti am acte de barbarie bi nga xamante ne mi ngi ci association de malfaiteurs li nga xamante ne moom moo di juróomi ponk d' accusation yi nga xam xamante ne teg nañ ko seen ndodd bis bu leeree ku ci nekk daan yi ñu lay daan ku ci nekk li ñu lay teg jéggi na dayoo jéggi dayoo goo xamante ne yaakaar naa ne bu ngeen déggee le grand juriste di ngeen xam ne mbir mi doon na mbir mu doy waar boo xamante ne rek tey jii ku ci nekk rek war nga cee